mais nag après la comprendre lan moo tax du am fitu jàkkaarloog yaayam di benn benn ak moom ndax jabar ji. Eh, sa responsabilité. je suis dans sa responsabilité. xawal nii leen daal xam naa. ah da nga boot sa jabar. waaw ma boot sama doom. man maa la jur. xool leen jabar ji. mais kii lii moo tax muy bëgg a rey boppam ba jabar ji dem asalaamaaleykum la famille béggee naa leen j'espère que yéen ngi si jaam bu baax a baax bon man maa ngi si jaam bu baax a baax di leen ñaanal xéwal gudd fan xaalis bu bëree bëree bëri wax leen amee géej naa def vidéo ça fait une semaine xaw ma deux semaines mais xam nga dëkk moom da ngay visite tout le temps. sama gars yi tey bete laa laa indil bete bete dernier épisode yi dañuy xool best of yu gën a soo yu gën a tàng xam ngeen dernier épisode temps best of yi dafa soo. balaa ñoo commencé merci deme la video ngeen abone bu dee yaa ngi may doog a seetaan nga like abonné partagé bu leen fàtte yéen ñu si yéen si benn sama promo code 21F la ça nga bëri 156 000 francs lien bi naa njëkkee ci séquence duudu ak yaay ji duudu ak sumbulu bi ñuy jokkoon maajo jokkoon lee mu wax mu dóor ko mbéj teer affaire bi soow nga koy seetaan sa xol bi féex nga seetaan sumbulu nga di ko mere nga xam ne kii nii non dafa mën a Let's go in one. Je suis dans sama yoon nekkul ma sa responsabilité. xawal nii leen daal xam naa. ah da nga boot sa jabar. waaw jàkkaarloo ma. waaw ma boot man man maa la jur maa tax nga toll nii nga toll. fàttalu ma la laaj jur ma la. baax ba tax ma ne laa gëm la. ki jarul dara. moom da koo dóor. nga dóor man maa ko dóor. ki jarul dara baax na yaa yow lii man maa ko dóor. lii waru la sa yoon nekk. lii waru la yow lii moo la war yow. lii waru la yaa yow ma teg ko. mais attends sama gars yi ma leen laaj maanaam sumbulu lii waru ko wala. duudu lii waru ko. xool leen fii. xoolal sumul buñu gisé ki <laughs> ki ñëw ci kër bi xoolal gis ngeen ni li motax maanaam doom ji am fitu jàkkaarloog yaay ji di ko benn benn lii du dem <laughs> saa am na loo xamante ne boo amee doo bàyyi mu <laughs> tamit lii <laughs> du dem. sër bi du dem de. ñu ma koy def comme si que man jaam laa si kër gi. yàlla lan laa la def tànn ay man lan laa def yàlla nag alkaani moo la may jàng sa doom juba jaam maa la bañ juba jaam juba jaam xamoo ne dama laa bañ wul yaay. non sumu la lee foo mais séquence bi sër bi sër bi sër bi sër bi kii woo doom. sër bi warul dende, de si film bi de xaw ma ba xam épisode yi di ñëw day deñ wala bébé bi warul deñ de. xool leen partie Soumboulou bi mu naan noo koy génnal saal bi Soumboulou ak mbindaan bi noo koy noo koy noo koy génnal saal bi dafa ko réew a sonn xool leen di ko tàpp. yéen def ñu baax si yow. ah oui man loolu def yàlla loolu laa def. il est fort. noo koy noo koy génnal saal bi noo koy génnal saal bi. noo koy génnal saal bi balaa maa ndox ay noo koy génnal saal xaw ma xam seetlu ngeen benn affaire mais su mul sonal na nogay. Ndeye Ndiaye moom lu ma leen wax rek man moom rek laay topp nit gënu koo neex xoolee Ndeye Ndiaye ak Fallou Benjamin ci baari annonce tay bi lii dama ko ree ba yuux. Mbaye. maa ngi lay dégg de. waaw man maa demoon naa. waaw lan mooy problème bi. man sax maa ko def Ami bay nag moom ma tooñ moom mi ma ñëwaat ñëwaat loo ci kër gi waaye comme que loolu la damay delluwaat fa ma jógee woon. commandé la taxi wala. <laughs> kon moom moo moo tasal boppam demal boppam moom moo indiwaatal boppam Ndeye Ndiaye bàyyi ma waaye sumbulu ak jëkkër ji moom ni ñuy dundee moom metti na moom alkaali maanaam li jëntuwul sumbulu mais sumbulu tamit amul dara lu ko neex si jëkkër ji jëkkër lu ko saf rek lay lay def moom yoonu nekk xaw ma alkaali xaw ma mais Marème yow yow wax naa la ba tey sa bi ngay sa sa frotté bi ngay frotté wu daf may dérange dama am suñu jit ça me dérange ça pue la merde si néeg bi lii daf may sonal yow waxuma la ko woon mais alkaali man tamit wax naa la ne xooluma lu la déranger ak lu la déranger wu et puis sax man sa sunu sa sinusite bi laa bëgg mu jóg ah da nga bëgg sama sinusite bi jóg kon daal da nga bëgg a rey <laughs> waaw dama bëgg nga dee <coughs> ok li ngay def yëpp xam naa ko <coughs> simple prétexte rek la pour aaye ma sa bop mais ba nga bohak oustaz bo xam oustaz <coughs> bo xam dafa ñew ba ci biir kër gi di la waar nga ko laaj ni ka ndax am jëkkër ba paré diko téré sa bop ah, lan islam wax <coughs> loolu nga ko waron wax ba paré alkaale yow l'islam la berné tek la di xaar bis bu rafet <coughs> l'islam booleetu la ci njabotam de yow da nga faté ni li l'islam di téré ya ko ñëk def and ak jigen bu la lewul ba am ak mom doom kooku xoolal erreur de jeunesse la woon. waaw waaw sa erreur de jeunesse la waaye xoolal lu utilise l'islam plus de vingt ans. Mm. loolu bu ma ko fàttali mais yow sa bàkkaar moom chaque jour dafay bees parce que chaque jour nga tere ma sa bopp. daan ah, wax tay tere la ko. ah yaa tay waaw. <coughs> man nga dee rek laa ma noppali ko. <coughs> dama dama am sax jot yow boo deewoon boo deewoon nag. yow moom dof nga dafa daal ma uti feneen fu ma faral. eh bàyyi. butit foo fanaan demal ca rumba bu la neexee bërëngu ba ca suuf escalier yi sama yoon newu ci waaye gis na sama kuweet yi man mi maa ci sànku. bàcc bi yow bu doon sax di benn toog yow xoola man damay ñàkk <coughs> damay ñàkk fayda yow. yow bi nga ñàkkee fayda yàgg na bi nga ñàkk cum kii mu ko jippi rek mu koy bëgg a dóor rek deewam gën a gaaw. mais lii nii genre genre sëy yi est que dans la vérité am na damay laa question la quoi. dans la vraie vie vraie vie est-ce que am sama gars yi moo nekkoon tey analyse bete bete bi best of yi maa leen tànnal xam nga ñi may xool épisode yi yu gën a sóo rek ma ñëw tànn ko seetaan noo ko ak yéen comme d'habitude merci demee la vidéo ngeen partager comme ni ma la koy waxee dëkk bi di bisu tout le moo tax mënu ma di def tout le temps vidéo mais xam rek dinaa faral di def vidéo à chaque fois su ma amee jot rek dinaa def su may kii rek dinaa jot parfois sax dinaa sacrifier sama temps ñëw defal leen vidéo kon gars yi aimé leen ngeen abonné ngeen commentaire ngeen partagé mais xam ni yéen may seetaan bonheur bi di dem di génn sam xol di dugg seen xol sama gaa yi lal li xaa ba beneen yoon